di nuyu mbokki jullit yépp ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér nee na léegi la ko woo ci bëccëg joxaat ko ndigal na ko nag sama siidi Serigne siidi sama digg moom xam nga ko ndax waxoon naa la ko rek bu yàggul. ndax yàlla dafa def nee na ba nuy fasante ak sëriñ Sidi kóllëre yàgg na nee na booba sëriñ naara ngi fi ndax nee na moom sëñ Muntaxa daa settantal sëriñ Sidi booba lu yàgg xool aw doxinam daal di fasanteeg moom kóllëre muy yéem lool nag pësteefub sëriñ Sidi ne ko wax naa léegi seex mu dem fa waaye du tee nag na nga fa dem teewal ma fa. kon bala ñuy dugg ci waxtaan wi. ñuy siyaare nag suñu kilifa bopp gu tedd gii. di Serigne Mahmoudan Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad di suñu kilifa. waaye nag nee na ñëpp xam ne du ñaari jëmm. kon ñu koy siyaare bu baax. di siyaare it nag kilifa kër gi. di Cheikh Abdou Latif mi nga xam ne moo fi xalifab sëriñ Issa Diène ak mbooleem njaboot gépp kon sëriñ Sidi Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na mi ngi lay nuyu mi ngi lay sant yaag mbooleem sa rakk yëpp ak sa njaboot yëpp ak sa taalibe yëpp di la sant la itam bu baax di la sant la bu baax ndax nee na lépp tawfeex la yàlla dafa def. ndax yàlla dafa def. Cheikh Issa Diène. Cheikh Issa Diène. ñëpp xam nañ ab cëram ci Serigne Touba. ñëpp xam nañ ab cëram ci Serigne Touba. ndax yàlla dafa def. mu liggéeyal Serigne Touba. ba Serigne Touba gërëm ko. ba def ko nag nii mu ko def. waaye nag yàlla def it. mu am tawfeex ci sëriñ bi. mu am tawfeex nag ci sëriñ bi. Serigne Abdou Khadir daana wax ne. Cheikh Issa Diagne ak sëñ Gaawaan mosuñoo gis merum sëñ Touba kon moom sëriñ Touba amut fu mu ko yamale woon ci mbiram mu am tawfeex lool balaa sëriñ bee xalaat dara balaa sëriñ bee xalaat dara wala mu bëgg ko rek sëñ Issa andi loolee tawfeex ju toll noonu la amoon sëriñ Touba yàlla def itam nag yàlla def itam nag Serigne Touba mayoon ko lu bari ci boppam. Serigne Touba it mayoon ko ci boppam lu bari. te doy na ko sëkk ndam nag. te loolee nag doy na ko sëkk ndam. jumaay njaareem ji nga xam ne. jumaay njaareem ji nga xam ne. Serigne Touba la dafa bokk ko suñu borom faye. jumaa ji daa bokk ci li suñu borom faye Serigne Touba. bu ngeen demee ci xasida raditu anil mawla. bu ngeen demee ci xasida raditu anil mawla. taala lasi rabba. fuaadi wa axnaani. fuaadi wa axnaani. wa akrim bihi rabba. bi ko sëriñ bi di taalif. bi ko sëriñ bi di taalif. mooy ba nga xamee ne. mooy ba nga xamee ne. dafa samp ay bant. daa samp ay bantam. ci buntu néegam. ci buntu néegam. def ko muy jàkka. def ko muy jàkka. commanda ba ñëw. commanda ba ñëw. daal di samp samp bant yee samp bant yooyee fa sëñ bi santoon sam sam sampoon sànni. ba noppi yóbbu ko ci ab tuurukaayu ndox. ba noppi jël bant yee yóbbu ko ci ab tuurukaayu ndox. ka defoon loolee. ka defoon loolee. la ko ci fekk. la ko ca fekk. ku dem ci irwaa nadim da nga ko fekk. ku dem ci irwaa nadim nag da nga ko ca fekk. waaye ba nga ko sempee sànni. waaye ba nga ko sempee sànni. yéeli sëy. yéeli sëy. booba fekk ma nga booba fekk ne ma nga gabon. mu ñëw ca commandant ba. mu ñëw ca commandant ba. di xuloo moom. di xuloo moom. suba ba guddi. suba ba guddi. ne ko bant yi nga sànni. ne ko bant yi nga sànni sànni. lorut kenn. lorut kenn. te yàqalul kenn. te yàqalul kenn. te ci buntu néegam nag la ko sànni. fii moom. mu ne ko nag fii moom. jàkk mënu fi am. jàkk mënu fi am. julli mënu fi am. julli fi mënu fi am. ne sëriñ bi sax da ngaa bëgg a yàq sama soldaar yi. ne sëriñ bi sax yow da ngaa bëgg a yàq sama soldaar si. sëriñ Tuubaa am coow naqar. sëriñ Tuubaa amoon coow naqar lool. jël xalimaam tàmbalee bind xasida rabbana axrijna. jël xasidaam xalimaam tàmbalee bind xasida rabbana axrijna min haasi alxaryati assaalimu ahluha waj'al lana min ladunka waliyan wajhal lanaa min ladunka nasiiran. ba ba muy ñaan nag ba àgg ci la hub ci la hub tub. salaatan. ma salaamin bi aalihi. wa ashaabihi. wa ashaabihi. wa shabbihi masjidi rahba. ci la ko sunu borom xamal ne ko. ci la ko sunu borom xamal ne ko. nangu naa sa ñaan. nangu naa sa ñaan jii de. da dellu Sénégal. da te benn bi dana noppi ba nga teg sa bët. muy jumaay njaareem. jumaay njaareem jooju nag. jumaay njaareem jooju nag. ba ko sëriñ bi yéenee. ba xalaat ko. Seex Isaa Jeen la woo. ne ko fii laa bëgg a def ne ko fii laa bëgg def jumaa ji ci penc mi. fekk booba ab séeréer ko moomoon. sëriñ bi jënd ko ci moom Seex Isaa ko jënd. sëriñ bi jëndloo ko Seex Isaa ci moom. ci ñeent fukki dërëmi ngóor. ci ñeent fukki dërëmi sëriñ bi tabax fa jàkka ja. ba noppi jël ko. ba noppi nag jël jox ko. plan bi yëpp Cheikh Issa ko defar. plan bi ak lépp Cheikh Issa ko defar. moo ko taxaw. ba mu àgg. mu jébbal ko sëriñ la ko ci sëriñ Touba delloo ni tam. la ko ci sëriñ Touba delloo ni. ku ko yaakaar. waaye taalibe sëriñ Touba yëpp xañ nañ ci. kon moom. daa am tawfeex ju rëy ci tubaa Touba. yàlla defit nag. yàlla defit nag. bari na ci biir njaareem na ci biir njaareem ci kër ga ay néegi dénk. yu kiimaane lool. yu kiimaane lool. yoo xam ne Cheikh Issa moo ko commandé woon def ko foofee. doy na ko sëkki ndam it. doy na ko sëkki ndam. maa ngi ciy waxtaan ak Serigne Sidi Barki Demba. ci jumaay njaareem ji. ci jumaay njaareem ji. ndax xam ngeen ne jumaa de ñaari xeet la fa sëñ Tuubaa julli. ndax jotuñu ko woon a ubbi. ginnaaw si ginnaaw sëriñ bi la ko Cheikh Ibrahima Fall ubbi. ginnaaw sëriñ bi la ko maam Thierno ubbi. ndax sëriñ Mbacke Bousso dafa waxoon ne. ndax sëriñ Mbacke Bousso dafa waxoon ne. diiru sëriñ bi dafa ne. diiru sëriñ bi dafa ne. mënee su ko julli àjjuma. mënee su ko julli àjjuma. ndax nekkuñu woon muqim. ndax nekkuñu woon muqim. te àjjuma ku nekkul muqim waru la. te àjjuma nag ku nekkul muqim moom waru te bi fi sëriñ bi nekk. te bi fi sëriñ bi nekk. mboolem ña fa ña fa ne. mboolem ña fa ne. bu sëriñ bi xëyee ñu gont. bu sëriñ bi xëyee ñu gont. bu sëriñ bi gontee ñu xëy kon dëkkuñu fa woon. ndegam sëriñ bi si na Tuubaa nag. ndegam sëriñ bi ñibbisi na Tuubaa nag. ku fa desati nag yaa fa bàyyi sa bopp da faa dëkk. kon war na la. am na ci nag xiit goo xam ne. am na ci nag xiit goo xam ne. bi sëriñ bi di génn. bi sëriñ bi di génn. mbooloo mi bari na lool. booba na lool. am na oto bu njëkk am na oto bu njëkk nit ñi yëkkati oto ba yóbbu. nit ñi yëkkati oto ba yóbbu. beneen oto dellusiwaat. beneen oto dellusiwaat. ñu yëkkatiwaat ko yóbbu. ko yóbbu. ba oto Cheikh Issa Diène ak seen. ba sa oto Cheikh Issa Diène ak seen. ca bi dugg. ca la sëriñ Tuubaa dugg. baagu ci jumaa waaye ba mu duggee ci biir waaye ba mu duggee ci biir rek. sëriñ bi nanguwut a toog ci nanguwut a toog ci sees yi. a toog ci sees yi. ndax daa waxoon ne. ndax daa waxoon ne. weñ gii de. weñ gii de. bu ma toogoon toogoon ci sees yi. bu ma toogoon ci sees yi. ca toogukaay bu ëllëgee daa leen jafe. daan dox nañ diir bu gàtt itam. dox na dox nañ diir bu gàtt itam. weñ jii dana rey mbooloo mu bëree bëri. weñ jii de dana rey mbooloo mu bëree bëri. mooy accident yi ñu dégg ci oto yi rek. kon nag kon nag. yàlla def yàlla def itam. yàlla def itam. dégg naa ci làmmiñu Seex Suhaybu bi muy nettali. dégg naa ci làmmiñu Seex Suhaybu bi muy nettali. ne Seex Isaa sëñ bi da ko waxoon ne ko. ne Seex Isaa ko waxoon ne ko. sa tabax ba ca ndànd bu àggee. sa tabax ba ca ndànd bu àggee. danaa fa ñëw. laata laata loolu nag. laata loolu nag. sëñ bi ñu bisu Touba. amul lu may tiim ak bis rek. mu benn bis rek. musulman timis. musulman timis. ci lal bi di wér. ñu ngi tëddee ci lal bi di wér. mu jekk seen sëriñ mu jekk jekk seen sëriñ Touba mu toog. mu wàcc suuf. mu waxante ak sëñ Touba lu bari. kon moom tawfeex ju rëy la kon moom tawfeex ju rëy la am sëñ Tuubaa. maamam sëñ Baara. maamam mii moom sëñ Sidi di sëñ Baara. xam ngeen ne ginnaaw bu mu doonee doomi Cheikh Issa ci boppam. xam ngeen ne ginnaaw bu mu doonee doomi Cheikh Issa ci boppam. sëñ Tuubaa ko yaraat. sëñ Tuubaa ko yaraat. tërbiye ko. defaat li mu def ci moom. muy ñaari cër. muy ñaari cër. sëñ Baara ñëpp xam nañ taxawaayam pas-pasam. Baara nag ñëpp xam nañ taxawaayam ak pas-pasam. ginnaaw bi tam. ginnaaw bi tam. sëñ naar waajuram nag. moom yàggut. moom yàggut. yaakaar naa ñi fi teew ñëpp xam nañ aw doxin. yaakaar naa ne ñi fi teew ñëpp xam nañ doxinu sëñ naar. tabaxam bii sëñ si defar daaw. tabaxam bii nga xam ne moom la sëñ si di defar daaw. maa ngi fàttali ko ba ma ko fi mujj fekk. Cheikh Mouhamadul Amin Baara yónni woon ma ci moom. boobee laa ko mujj a gis. ay fan dong la ci teg jóge fi. waaye booba màggat na lool de waaye booba màggat na lool. waaye booba tabax bi waaye booba tabax bi nga koy fekk. tumuranke bi tumuranke tabax bi. yaakaar naa senn sax daana ko def. yaakaar naa ne tabax boobu senn sax daana ko def. te yaakaar naa kër Sëñ Tuubaa bu ne tabax na fa bu rëy. te yaakaar naa ne kër Sëñ Tuubaa bu ne tabax fa pare bu rëy. kon moom. lu mas a agsi ci moom rek. lu mas ci moom rek. yóbbu na ko kër Sëñ Tuubaa. waaye nag moom mii. waaye nag moom mii di Sëriñ Sidi wuutuwu leen de. nee na wuutuwu leen de. alxuraan di wax summa jaanaa summa jaanaakum xalaa'ifa fil ardi min ba'dihim fansuru kayfa ta'maluun mu ne wuutuwu leen ci li nga xam ne ni la alxuraan di waxee wuutaat yi nga xam ne ñoo wuutu ñu leen jiitu woon. moom dafa topp ci jéego yi ko jëkkoon. moom dafa topp ti jéego yi ñamu wuutu. lépp luñ daa jëf. lépp loo xam ne ña ko jiitu woon daan nañ ko jëf. mi ngi jëf lu ko ëpp nag fuuf. loolu yombut te nee na loolu nag yombut ci yoon yi. te doyoon na ko sëkk ndam. te doyoon na ko sëkk na ndam. fa ko waajuram bàyyi woon. fa ko waajuram bàyyi woon. mu fexe ba téye ko foofee. waaye nag yokk na ko lool. ba ñi nga xam ne moom sëñ Sidi mii daje naa ñoom ci waa Kër Sëñ Tuubaa. ku ci nekk làq na sa ngërëm. kon nag wóor na ma ne. kon nag wóor na ma ne. maamam Cheikh Issa fa mu tëdd. maamam Cheikh Issa Diène fa mu tëdd. xolam set na ci sëñ sëñ Baara maamam xolam set na sëñ Sidi sëñ Naar mi ko fi bàyyi ci bopp nag wóor na ma la xolam sedd na ci moom ndax loolu du waxi boppam waaye loolu lii ma wax nii dégg naa ko sëñ Sidi Muxtaar dégg ko sëñ Muntaxa te si nag ki fi nekkal sëñ Tuubaa wa maa yantiqu anil hawaa kon nag ñu ngi lay ñaanal ci barkeb sëñ Tuubaa ne sunu borom ko doon saw fan na dolli sa wér yaag sa rakk yëpp ak taalibe yi nga àndal yëpp ngeen yàgg ànd di liggéeyal sëñ Tuubaa te liggéey bi nag lu sotti rek yàlla ko sëñ Tuubaa gërëm lu àgg it ngeen tàmbale waat la neen ci barke sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Mbacke sëñ bi ñu fi sëñ bi ñaan bi ñu fi nekk ñëpp ay baykat te ruuj na nawet bi gën bopp daaw mu ne ngeen talal président amin amin amin amin amin amin